xamante ne moom mooy dees bu parcelle moom laa njëkk woo Pa Modou Mbaye le grand monteur ak ki nga xamante ne mooy Farba ñaari xale yooyu ñoom ñoo war a bëree premier combat bi ani Farba Farba xanaa ñëwul jël sa micro. bisimilah maa ngi nuyu ñi nekk ci salle bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu waa CNG di nuyu grand bi. Fadam dëgg yàlla Farba waaw. bu baax Fadam dama koy suivre quoi. Mm-hmm. ak yow tam di la nuyu. Mm-hmm. di nuyu mbër yëpp. Mm-hmm. di nuyu parcelle waa parcelle bi ma jóge quoi. di nuyu sama sama waa kër. ñu ngi si ba Zac Mbao mais parcel laa parcelle laa yeewoo jamono ji quoi fa laay préparé sama combat. di nuyu daal axlu làmb. di nuyu tamit xam nga kilifa diine yi xam nga kilifa aada yi xam nga di nuyu ñëpp. fépp fu kilifa nekk rek maa ngi maa ngi lay nuyu. ci mm-hmm. la wax ñaanal ma tamit ci combat bi quoi. sa adversaire ñëwul lan nga koy wax. waaw sama adversaire moom moom xam nga dafa tàmm sàqi quoi. Mm-hmm. sàqi da ko tàmm. Mm. waaw sàqi quoi gis naa ne da ko tàmm. lu tax nga ne dafa tàmm sàqi. waaw parce que dama seetaan combat am. Mm-hmm. dañ ko dëgmal mu sàqi xam nga. dara daw génn géew te tam ñu nii dafa sàq. lan nga koy wax. waaw dama koy wax dama koy xamal ne. am na bésu le yàlla. dama koy xamal ne am na combat nag quoi. Mm-hmm. parce que man xam nga dama di mbër boo xam ne dañ ma recruter. Mm-hmm. dugal ma ci làmb. maanaam dama doon ko xamante ne maanaam dama doon dox di taxawaal di xeex. Mm-hmm. ñu ne ma nag xeex bi ngay xeex ci mbedd bi amul njëriñ léegi nañ la dugal ci làmb bi te dama mun bëre. déjà mos nga bëre combat ren. waaw naa bëre sama premier combat ren. waaw dañ ci daan bi mooy sa deuxième combat. bi mooy sama lan ngay wax si supporters yi. sama type supporters yi. waaw far farba moom laa farba laa bëgg waxal ba pare. waaw loo koy wax. dama ne la wax ko mu mel da nga ko ragal. te newu fi non non ragalu ma ko da nga ma wax après nga te posé waat ma beneen. léegi lan nga koy wax. waaw moom dama koy xamal ne am na làmb rek. Mm-hmm. teg der bi la am de. Mm-hmm. teg der bi di ko wax nag di ko ñaanal xam nga. bis ba mu ñëw ak jàmm dara bañ ko dal. Mm-hmm. di ko ñaanal ñi fi ñi fi toog ñëpp nag. waaw ñu fi bu ñuy dellu tamit yàlla nañ dellu ci jàmm quoi. Mm-hmm. ko ñaanal ñëpp. di ñaanal xam nga ñu nekk ci lalu hôpital yi xam nga di ñaanal euh, ñi tëdd ci sama yaay ak sama papa xam nga dañ génn àdduna quoi ma leen di ñaanal. Mm-hmm. yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal seen kaw xam nga. Mm-hmm. di wax ne waaw xam nga sama mbëbët ci làmb daal mooy bëgg jàppale samay raq. incha allah waaw incha allah yal na ko yàlla yal na ko yàlla mottali. looy wax supporter ci. non waaw non à la di leen wax xam nga rek. Mm-hmm. non violence comme làmb ji nu mu nu mu mujjee woon demee. Mm-hmm. xam nga ñuy ñaan yàlla xam nga làmb ji yàlla nañ ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi lay jaajëfal incha allah bu neexee noonu la def di nuyu nit nag amul lu dul ay mboqam ñii samay mboq lañ. Mm-hmm. di leen ñaanal ñoom ñëpp. ndam di ko ñaanal Papa Sow tamit. kon daal yéen bis boobu yéen a bokk ay supporters. waaw noonu la demee. maanaam da ngeen fas yéene mobiliser daal xajal kenn. ba ci combat bu mag. noonu la demee <laughs> jaajëf maa ngi lay jaajëfal. bu baax a baax di nuyu tamit xam nga kay sama nijaay la quoi. mu ngi mm-hmm. fi indi. ndeysaan waaw di nuyu nag ñëpp ñi ma jàppale ci combat bi. lu mm-hmm. ci mel ni père Ba. sama mm-hmm. papa sama lépp. mën sóor waxi nopp ñooñu moom maay seen mbër. xam nga di nuyu euh, euh, waa waa écurie ba di nuyu grand lato ak balla balla balla balla ak kii suko ak suko grand suko waaw di leen nuyu quoi ndax mm-hmm. xam nga di nuyu sama grand aada ndaamali mm-hmm. waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a ah. baax merci ah